ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك di ñaan mboolem bu fi teew rek nga ñaanal ñu ci tànk yi fi bàyyikoo sunu borom def leen wattu téere borom bi subhanahu wa taala balaa ñu fay teewaat déwén yow a yàlla yàlla na ko yàlla def comme ni ko seen i morom di sant seen i waajur mboolem ñu fi teew ñëpp rek nga xam ne bis la boo xam ne yelloon na ku ci nekk ñu amal la ko jëkkatu ci nekk ndax nekk ci daara di yëngu ci téere bi subhanahu ba wàcc ko jaroon na jotaay bu waaye ànd ak li jamono xate rek moo waral ñoom ñëpp ñu dajale leen di fukk fanweer ak juróom-benn boole ñaanal loolu leen ñaanal borom bi subhanahu wa taala def leen ay mag def leen mag islam barkeel seen alléwo lépp xaraf bu ñu jàng rek suñu borom def leen ci barke ndax barke moom yaakaar naa fu dugg fu nekk boromam yëpp kon barke boobu yàlla leen ko borom def leen ñu doon ay mag def ay mag islam def leen ñoo xam dem ba taxaw seen i waajur yàlla mën na ko yàlla def ci barke alquran karim ñu ngi jaajëfal mbooleem ndongo yi nga xam ne barkeel nañ ci yëpp di wéyale loolu ba tey di dalal mbooleem kilifa yi nga xam ne yàlla yëpp jiital ji suñu wajur suñu may saga yi teel na fi agsi ak mbooleem wajur yi nga xam ne ñoom ci jotaay bi yëpp mel ni bu ñu limee mën nañoo bañ matal ndax xam naa xëy na bu sëñ bi ñëw dina gën a yaatal ci fànn boobu waaye ñu xam ne daara ji sant na leen gërëm na leen ci jéego yi di leen ñaanal borom bi subhanahu wa taala sàmm leen Euh, ba li ngeen yéene ci njaboot yëpp suñu borom saa su nekk di leen ci feeñalal lu kawe seen i jox yomb na yàlla yàlla duñu yàlla nañu ko yàlla defal bu ko defee dañuy ñëw daanaka ñoom ci yeexantalu liggéey bi ñu fas yéene dalal groupe bi nga xamante ni incha allahu taala balaa fan yu néew rek wala weer yu néew incha allahu taala am nañu yéene yóbbu wax leen fi yóbbuwoon seen i morom ku ne ku ne xam ne ni daara ji ku ci mokkal daf lay yóbbu ci yenn daara ci dëkk bi wala lu génn dëkk bi ci jamono bii nag képp ku fi mokkale ñu la yóbbu ci daara yi Serigne Darou daara yi Serigne Salih Touré ngir ñu fa sa àlliwo buñ ko wéralee ni ndongo bi mokkal na ci la ñuy door wéral ñun daara ji ni ndongo ba yóbboon nga alhamdulilah yàlla def na wa wattu ba alquran karim kon ñoom ñii di waaj ñëw ñii incha allahu taala wala ay fan yu néew dinañ leen dem yóbbu leen ca daara yooyu. salaam ala man la nabiya baad wa akbar ورضي آل من الله تعالى على عبد الله وقدير رسوله مولانا الشيخ القديم وقت برد الله كنت قد غير دي قصير دي قلت الوقت بي كنت قصير عم صانع غير كنت قد بيها قلنا لي من مقر قبال كار يمكن دي قدم بي ومسيرين باب كرتيو السيرين موسى السيرين الله يتاب من يجلس سيرين باب كرتيو من يجلس yenn ci ay aaya incha allah sootu nisaa yi bismillah teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax nuyoo boobu nag ak siyaar bi ñu ngi ciy jiital Serigne Mountakha Mbacké di ñaan ci barkeb Serigne Touba Xaadimu Rasuul yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te man da ko wér ba lépp li nga xam ni naal na ko ngir liggéey ko Serigne Touba Xaadim Rasul mu jëfe ko la kaw njort bokki jullit yi ñu ngi ndokkeel ñëpp bokki jullit yi ngi nuyu ñëpp xam naa su ma ko seddalee ci ñii ku ci duggul rek na ma ko jéggal ma tàmbalee ko ci ñi nga xam ni ñooy waajur donga yi muy góor jigéen di mag di ndaw nga jege walla nga sori ma teg ci dongo yi seen bopp muy ku góor di ku jigéen di mag di ndaw ñetteelu groupe bi muy jàngatal jàngalekat alxuraan yi bu dee jigéen la walla góor walla mag walla ndaw ñeenteelu groupe bi ak moo ci bokkee muy dëkkandoo moo xam ñuy dëkkal fii la walla ñuy dëkkal fële la juróomeelu groupe bi mooy ñi nga xam ni ay soppe lañu juróom-ñaareel bi mooy ñi nga xam ni dañoo jaaroo ci daara ji ba yàlla def liñ fi war a am suñu borom dogal ko ñu delluwaat seeni kër kon mbooleem ku bokk ci groupe yooyu may wax maa ngi lay nuyu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu maa ngi lay sant ku bokk ci benn groupe ci groupe yooyu fa cant yam maa ngi jéem a tàmbalee foofa di la sant te di la gërëm te di leen jaajafal yéen ñépp waaye ma teg ci di leen balwaq moo xam waajur la wala donga la walla jàngalekat la wala dëkkandoo walla soppe wala nga nekk ku fi jaaroon wala nga nekk ndey daara ci groupe yooyu dugg ku doon ndey daara ak noo ko doone ci daara ji dugal nañu ci lim bu ñuy wax ñu ngi lay nuyu ñi ngi lay sant di la jaajëfal di baal ak ñépp di leen ñaanal nag ci barkeb Serigne Touba barke alxuraanu karim barkeb kii ñu tudde daara ji muy Serigne Dar Alxasan Ndiaye waaye barkeb ki ñu duppee barab bu tedd bi ñu nekk muy maam jaaratullaahi Mariama Bousso si am di wax na ko ni fii daaray maam jaara la ngir soxna yi ñooy fa la ñëw wéeri seen liggéey kon ñu ngi leen di ñaanal ci barkeeb mucc yokk yag fi yalla len ko sunu defal noonu ñu ko sàkkoo ci noonu ñu len ko defale ñong koy sakko ci yeen ngeen ñaaral ñu ndax fi am di wax na ko sànq xaribun ujibu da'wata da'i isa daani sunu borom mom ku jage jambi la sunu borom subhanahu wa taala yermane ji muy nango ñaan ku jage jaamam la kon ñi sak ñep ñaanal ñu kon ginaaw kaddu yoyu damay daal di dugg rek ci mbir yi nga xam ni moom la si am di wax ni ñu jéem koo leeral suñu kamtalaay kàttan waaye ma leen di ñaanal ñoom ñi ma féete sama loxo ndeyjoor ak kii ma féete sama loxo càmmooñ lu ma ci am yéene leeral ko su manqué nañ ma ko wax rek bala maa jox kàddu gi lu ma ci am yéene leeral ko ñoom xam nañ ko lu ci manqué rek nañ ma ko wax insha allahu ma jéem koo jottali mu mel ni nag dafa jëm ci ñetti mbir benn bi mooy téere yi nga xam ni xale dañ koy soxla su ma waxee téere maa ngi ko tàmbalee ci téere alquran téere xasida téere xam-xam kaye ak big dañ ci war a waxtaan sante ko yàlla ndax jataayu tey bii jitaay sant yàlla lu ñu ci def rek dañoo gis tawféex ji ñu sunu borom defal ci at yi passé gis sunu borom tawféex ji ñu defal ci at yi weesu ñu daal di am beneen jéegu nag bu ñu bëgg a seqiwaat ci daara ji barkeelu ci ni yàlla subhaanahu wa taala waxoon ni la in shakartum la azidannakum sunu borom nee na fii yéen a ngi sax ci di ma sant ma ma sax ci ngeen dolli kon ñu bëgg am benn bunt bu ñu mooy buntu jàng xam-xam buntu loo xam loo jàng da koy bind nga xam ne tey suñu waxee sàll Sall kër Diop Alaaji Kàbbu buñ leen di jox diplôme buy wane tari na alxuraanu karim dana ca bokk luy màndargaal ñoom ñuy seen loxo rafet na lool ci wàllu bind loolu nag dafa am lu mu laaj loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan ci wàllu kiir yi ak yooyu yi ñu demee ba ca des ñu waxtaan ci wàllu koddaayu dongo yi muy yére yi ñu sol ak ya yóbbu ak ya nekk seeni kër ñetteel bi ñu war a waxtaan ci liggéeyu daara ji ñu war a waxtaan ci liggéeyu daara bi kon ñetti tomb yii lañ indi woon ni dañ ci fas yéenee waxtaan waxtaan woo xam ni daa li ciy bees lu bari la ci ëpp fàttalente lay doon kon bi may jiital mooy téere dong bi dañuy ñaan waajur yi fi teew ak ñi teewul ñoom ñépp nañuy maase di déglu am di sàmm moo toog nii sama loxo ngay jor moo yoroon kàddu gi moo jiite jàngalekat yi nañuy déglu si ci am di sàmm ak ku mu jox ndigal am di mooy jox ndigal bàyyi moor moo koy jox maam Thierno moo koy jox maam Cheikh Diop Mourtada Thioune waaye moo koy jox Sëñ Fallou Mbaye kenn ku war a jënd benn kaye wala benn dib wala benn téere dañuy ñaan saa boo jotee téléphone boo xam ne ki la woo mooy Amdi Sam wala mun la am di moo ma yebal ngal la waay ñu ñaan la ko ci jëmmi Sëñ Tuubaa yi ñaan ko ngir barke alxuraan su kàddoom rotee rek dugal la ko ndax bi mu lay woo fekk na xale bi mënatul a ñàkk kaamil buy taree xale bi mënatul a ñàkk kaamil buy nafare te ku ne xam na ni jamono yi ñuy wax ak yéen imprimerie yi liggéey qualité bi ñu wànnee ci këyit defatuñu ko ci lekk bu njëkk ba xale mën na yor kaamil ñe ñaari at waaye léegi ñetti weer rek moo te xale bi ndeysaan nu ne dina ko sàmmee waaye bu loxo bi ñaqee nga gis fooy yàqu ku ne mën na gis xam li ma ko wax ci wàllu këyit nam daan tale nam ko daa may téye mënatoo ko léegi da ngay wut benn kaamil daañu ci wàcce kaamil juróomi at léegi kaamil boo yóbbu di ci wàcce kaamil juróom benn weer boobu moom màggat kon nag ñuy ñaar waajur bu mu wax mukk ni daal jëndoon naa kaamil bu mu wax mukk ni biñ ma ko laajee buñ ko laaj kayit bu mu jàpp ni am di bi ma ma indee paquetu kayit bi ak léegi matagul ñaari weer na xam ni dañ nekk dañ ko ni sa doom dañ koy jàngal bind kon nag dana bind ñu xotti dana bind ñu effacé boole di ko gas di ko suul ndax duñ ko bàyyi mu taxawaal kon bul ñëw mukk nga laaj ana téere yi mu doon jànge bul ñëw mukk laaj ana ay keer ndax lu ci màggat dañ koy gas suul ko benn ñu suul ko ci kër Soxna Jaara gi wala ñu suul ko ci kër Sëñ Tuubaa gi ndax la yelloo kon maa ngi ñaan waajur ndongo yi ci tomb bu njëkk bi muy téere alxuraan danañ ko soxla lu bari ren kaye bu muy binde danañ ko soxla lu bari ren big bu xonq ak bu ak bëla ñuy ñaan nag ku fi jóge tey jii incha allahu le 10 la ñëwaat ñu ngi ci mois de juin le 10 juillet bu ñu tëbaskee ba ay fan kuy ñëw na nga indaale benn paquetu kaye moo ñu gën a yitteel fi ñu ndax téere yi macha allah mi ngi fi woon waaye lii ñu bëgg a dugal ci njàng bi muy jàng ak bindiin te mu wér loolu du xaar kon kuy ñëw jëlal benn paquetu kay bu 32 pass nga jébbal ko soxna si am di si am di bu ko tegee ci loxoom ba dugal ko ci armoire dina xam xale bi jamono bi ñaata kay laa ko war a génne yaakaar naa ni sunu borom subhanahu wa taala bu ñu defalee tawfiq lim lay woo du bari du ma du la woo ci at mi waaye du bari kon képp ku fi teew bul wax ni xale bi démb la fa dem bul wax ni am na fa ñaari weer bul wax ni mokkal alxuraan yow daal dimbali ñu ba ndegam sa tuut tànk mi ngi ci daari sëñ Daro Alxasan Njaay rahmatullahi alayhi jëndal ko benn paquetu kay suy ñëw kon ma tënk ci wàllu téere yi ñu yem ci baat boobu ñaareel bi mu jëm ci wàllu yére yi foofu nag dañuy ñaan rek ñu bàyyante fi xel bu baax mooy fi ñu toll am na beneen jéego boo xam daara ji siqi wàllu ci wàllu yére yi bu ñu ñaanee tey jii ba dongo yi delluwaat seen kër kuy ñëwaat la diis ñi ngi lay ñaan bul inaane gaal bul indaale saak bu mënta ñàkk bu mënta ñàkk indil benn mbuus bu ndaw la indi ci yére yi na doon yëpp na doon yu dëgër na doon juróomi ensemble yu bees te dëgër ndax am na yoo xam mën naa bees waaye mi ngi jar mille deux cent cinquante wala mille trois cent saa bu ko xale bi solee fukki fan ak juróom da ngay élastique bi bàyyi tuba yi tàmbalee wadd ñu daal di jël yóbbu ci mbalit bi bu ko defee nag su waajur wi duñ koo léeralu moom danaan man kat bi tu tànk bi demee tabaski jëndal laa ko juróom waaye yan juróom nga ko jëndal kon ñuy ñaan na nga xam ne defaloo nit wala defaloo ku gën kii jàng alxuraan rawatina yàlla terale la ko yow ak nu mu la ko terale benn ñu dénk la ko wala muy sa doom wala ñu jox la ko wala muy sarak kon kuy ñëw maa ngi lay ñaan na nga jënd juróomi ensemble yoo xam ne nii yu bees lay doon te yu dëgër lay doon nga nga boole ci benn yére wolos boo ñu mënee nag indil bi mu soloon ci tabaski yi ndax xam na kon benn yére wolos doy na bu ngeen gisee tudduma jigéen ñi dinaa ci ñëw jigéen ñi nday daara yi ñoo leen di woo wala xëy na bu ko soxna Fall préparé ñëw wax leen ndax miinu ma yëre jigéen waaye dinaa ci wax rek bu gàtt mooy ñu moytoo jënd solo fekk rafet nañ dama ne nga moytoo jënd yëre jigéen mu seer nga ne jot na fekk boo ko solee day yaraax du ñàkk at yëpp ñu ngi ci waxtaan waaye ngeen dimbali ñu rek ba képp kuy ñawlu sàmmoonte leen lii na jot na fat te bu mu xam gis nga lii boo sàmmanteeg loo ñëw baax na tissu boo jënd baax na waaye boo nee bay jënd boo dem jënd paquet boo xam ne nii daanaka xeetu nilon lay doon bu ko xale bi solee mu tasu ceeram bépp du mën a génn man su ma toogee ci ëtt ba lu bari ñoom dañuy am jafe-jafe dama naan ngeen di seen waajur yi allah sonn nañ jënd yére ndax yére bi ànd naa kaal ak lépp waaye demal nga soppi nga sol leneen loolu nag damay xam ne ñoom jënduñu ما خامني كيكو جندي يينا لام واي لا نان ديلو سوار خالي خامني يارو الاسلام لا ن بغ مو ساخ تي جوليم ني واولا ما عن يبي الناسون لا بروم خام خام واخ موي ايصال الخير في قلوب اولاد المؤمنين كو يالا مسا يوني سي يينه موي لو باخ ساخ تي خولو دوم جوليم ني لو باخ يري دغنا واخين دغنا تيالين دغنا توغين دغنا loolu nag am na lu ci waajur yi moom bu dee jigéen juróom lay doon xëy na màggu jigéen ak góor war xanaa wute am yeneen bagage jigéen yoo xam ne kon may ñaar wàllu yére yi na ci ñëpp déglu nday daara yi ñu bàyyi xel téere am di sàmm ay yére na ci ñëpp déglu nday daara yi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك